pour la couverture médiatique de vos événements, concerts, gamou, conférences religieuses, mariages, baptêmes, anniversaires et toutes sortes de manifestations, faites confiance à SSP TV. SSP TV est une chaîne généraliste de la banlieue de Caroise SSP TV vous propose des services défiant toute concurrence avec une chaîne YouTube de plus de 10 waaw waaw da am sa événement ak événement bu mu mën a doon moo xam concert la gàmmu conférence religieuse mariage ngénte anniversaire ak bépp xeetu programme ñëwal SSP TV ñu couvrir leen la ko li si gën a neex mooy dañu leen proposer ay édition spéciale yu am solo contactez SSP TV au 77